Firdawsi di profité waale ci occasion bi di lancer benn message quoi ci Malika ñi nga xamante ne dañ faa wàññeeku ku ci mel. parce que ci ci benn weer ah Malika ay meurtre yu waaw euh, affaire bu doy waar ah. doy waar ah, moo tax ñu génn def mars ndax yaakaar naa ñun waa Malika xamewuñu ñu loolu te nitu Malika dafa am nu muy doxee Malika dëkku diine la dëkku jàmm la dëkku dëkku dëkku dëkku daluwaay la. yàlla xam na loolu moo tax di profité ci occasion bi ñi ñàkk seen bakkan Malika yëpp di leen jaale waa Malika bi yëpp ak seen i mbokk ah, ak suma grand frère Razak ki ñu jam ci ko côté place bi kooku suma grand la moom moo ma njëkk bokk na ci ñi ma njëkk a photo defal ma ko ay montage ñuy mbappa tantu vraiment quoi Abdou Razak maa ngi koy jaale Malika bi yëpp di ko jaale képp kuy doom Malika di ko jaale ay mbokkam quoi mais nag yàlla dogal na ni bañ demee ba def ay recherche xam nañ ñu ko rey dëkkuñu Malika kon loolu ak sant la di wane ni ñun marche bi ñu doon def liñ ju taxoon ñu jug doon marche yàlla suñu borom leeral na lépp ndax ñun xam nañ ni liy def loolu noonu dëkkuñu Malika duñu ay doomu Malika ndax doomu Malika day modeste day correct day baax day ouvert day yaatu kon ñun xamew ñun si loolu quoi moo tax bu ñu si déggee rek ñun dañuy jug xeex ko ngir mu deñ fa quoi di ñaan yàlla na fa yam yàlla bu mu fa amati quoi vraiment. jërëjëf Cheikh. buur di kontaan si yow tamit.